ma lay baamtuwaat ne ku mel ni man mënula yuuxu ca kaw mhm. ndax su ma yuuxoo ñu teg ko feneen mhm. waaye man mi bokk naa si ñu loofu lool bark sëñ Bàmb bokk naa si ñu loofu lool te bala ngay dem dañ ma indi facture courant ndox ma koy teg sa loxo ndax Moussa Faraw au moins en attendant les événements les événements